rawatina kuy woote ni responsable la te mun a dajale ñaari nit yow nag yàlla dénku la genn ndoom ak tànk doo ministre doo député doo chargé de mission waaye responsable nga boo xamante ni ku ñëw fii tey dina xam ne Amsatou Seck responsable la kon nag nag ñëpp tàcc Amsatou Seck léegi nag message bi mooy ki leen dajale fii dajale mbooloo mi jàppale association yi am yéene ci jigéen ñi kooku nag mooy am sab sekk tàccu leen am sab sekk bu baax a baax mbokk yi dañu jëm ci ay élection yoo xamante ni dafa am solo lool ci département de Mbacké dafa am solo lool ci commune bu Touba ndax ñun ñi nga xamante ni ñooy population bi ñoo war a tànn ay ndaw yu ñu représenté fële ci assemblée nationale assemblée nationale nag buñ ko waxee mooy pencum ndaw réew ma fala la ñuy nasee loi di fa noccee département Mbacké nag am ci particularité bu rëy rawatina coalition bi nga xamante ni moom la sëñ Amsatou Seck di jàppale muy la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu jël kenn ci doomi dëkk bi ñu jël kenn di doomi Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñu gën koo xam ci Cheikh Abdou Lahad Mbacke Gaynde Fatma def ko muy tedd liste bi. kan mooy Cheikh Abdou Lahad Mbacke Gaynde Fatma Cheikh Abdou Lahad Fatma moo jiite culture et communication ci Magalu Touba yaakaar naa ni bi ko yàlla dénkee mu jiite culture et communication ci Magalu Touba ba nëgën def na ci ay jéego yu am solo yoo xamante ni kenn mënatu koo weddi. daaw journaliste yii yaakaar naa duñ ma bàyyi li fi teew daaw ci ay journaliste yoo xamante ni jóge nañ ci biir réew mi ak ci bitim réew kenn xamul nu mu toll ak colloque yi nga xamante ni doon na ko def modernisation bi nga xamante ni modernisé na ko màggal Touba kon yaakaar naay kenn dootu présenté sëñ Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ba tax na coalition Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall suwaa ko ñëpp dégg na ko tey ji mu ni bi ko président Macky Sall woowee ni ko dama laa bëgg nga jàppale ma Touba mu ni ko man dey damaa am ay kilifa nee na daal ni ko kon da nga yónnee ci sama kilifa Cheikh Sidil Mokhtar nga tàgg ko président Macky Sall jàpp ndaw yónnee ko Cheikh Sidil Mokhtar moom itam mu daal dem ci sëñ Sidil Mokhtar tàgg ko dem ci xalifaam xalifa Darou Khoudoss tàgg ko ñooñ jox ko ci ay ndigal mu soog a ñëw engagé wu jël ay responsabilité am lan la ñu mën a apporter moom sëñ Cheikh Abdoulaye Mbacke génn Fatma bu ñu ko yóbboo assemblée nationale. kenn ku ne xam na ni député dafa dafa doy waar dafa garaaw yombul du am aadama Dieng rek moo mën a nekk député député dafa aaje nga mën a proposer ay proposition de loi député day laaj nga mën a taxaw ci péncum ndaw réew ma mën a dégg langue yëpp dégg langue officielle muy français dégg langue nationale bi dégg anglais dégg langue yëpp bépp loi boo xamante ni yóbbu nañ ko fa ñu mën koo càmbar ndax bu fekkee day gaañ diine nga mën a xam bu fekkee day gaañ aada nga mën a xam bu fekkee les da koy tere nga mën a xam bu fekkee di ko dañ koy jariñoo nga mën a xam Cheikh Abdoulaye Mbacke nag yaakaar naa ni Canada la jànge ñi muy xëccoon fii de génnuñu Mbacke moom nag Canada la jànge Canada foofu laa mi ay diplôme ñi muy xëccoon nag koo ci bindal aw juróom boo ko yexe dina kon nag yaakaar naa ni <laughs> ñun waa Touba nag waruñoo jaawale Angleterre ak pomme de terre du ñu gis koo xamante ni ma nga jànge ba Canada am diplôme boo xam kenn amu ko ñu di ko xëccoo koo xamante ni boo ko yóbboon mbàkk gi mun na ñibbisiwaat non duñ ko def dañoo lànk duñu ko def dañu ko deful defuñu ko defuñu ko nax yi doy na ñun ñëpp dañ daan dégg ñu naan nañ jàppale maître Ablaye Wade ndax taalibu Sëñ Tuubaa la waa léegi nag sëtub Sëñ Tuubaa ci boppam moo soxla nag sëtub Sëñ Tuubaa moo soxla nañ jàppale Ablaye Wade ndax taalibe Sëriñ Tuubaa la mais nag sëriñ Sëriñ Tuubaa ci boppam moo soxla kon ñun naka lañ jàppale Sëriñ Sëriñ Tuubaa mbokk yi jataay bi dafa yàgg waaye lu leen waay mën a wax mooy liste bi nga xamante ni moo gën ci département Mbacké mooy liste bi nga xamante ni moom la Amsatou Seck mii di jàppale muy la coalition Benno Bokk Yaakaar te dégg bu ñu waxee ba assemblée nationale tàbbi ci loxo opposition bi ah ñun mbokk yi réew mi dina am jafe-jafe du autorité Ila Touba mi ngi ñëw ay loi lañ ko accompagner de bu fekkente opposition bi ñoo am majorité assemblée nationale kon autorité Ila Touba du ñëw kon le programme PIDC bi nga xam président taxawal na ko ngir wutal dëkk àll ndox du ñëw kon le programme couverture maladie universelle bi du ñëw kon le programme bourse sécurité familiale man damaa wax ni am na ñu xam ne wu.

ñeent juróomi liste na ngeen njëkk a jël bii teg ko seen loxo càmmoñ tànn yeneen juróom ya bu ngeen demee bii na ngeen ko lem ba mu jekk ngeen dugal ko ci enveloppe bu leen ko kole de bu leen ko kole bëggul kole de élection yi passé juróomi junniy bulletin niil juróomi junniy bulletin niil moo am Touba ñu ni waa Touba mënuñoo wote daw leen loolu de bu leen ko kole na ngeen ko dugal ci biir ya ca des ngeen indaale ko bu ngeen dikkee jox ko kii jaay caaf seen maam ngeen jëf responsable politique jigéen ñi ci ay liggéey. ndax loolu mooy suñu bëgg-bëgg mooy suñu yéene jàppale association xale góor yi nga xam ne tam nekk dañoo nekk ci koñ bi aljuma ju ne ñu jël seeni ratu ak seeni bale ak seeni brouette di wër mbedd di tonni mbalit kon képp ku fi ñëw te nga xamné ne jàppale sa liggéeyal sëriñ tubaa moo la ñor bo ñëw di ñu fi fekk lañ and ak yow ci loolu ndax ñun ci loolu lañuy dox kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm nak ba tay ba tey mbooloo mi des muy jigéen ñi seeni dëgloo des na te bu ngeen déglu woon gone danañ déglu déglu leen ba ñu xam li ñu fi indi ngir jëmi Serigne Touba jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax di leen gërëm. léegi nag ñun comme li ñu waxoon keroog rek loolu la ñuy waxaat tey maanaam dañoo bëgg liggéey te fi mu ne nii yënguwuñu ci dara suñu xale yaa ngi nii liggéeyuñu ñun jigéen ñi liggéeyuñu. ñun jigéen ñi ci jëmmi boppam ñun waa janatu Jannatul waa noppalooguñu ndax suñu njaboot gi ndax bu fekkoon suñu njaboot gi dañoo am fu ñuy yëngu ñun ñu noppalu liggéeyuñ dara jàng nañ ba jot seeni lijaasa te mënuñoo fexe ba am fu ñuy yëngu fii jigéen ñi jaay jën palaatu xolli gerte façon coono bu nekk ñu ngi jànkonteeg moom te bu ñu sañoon nag te bu ñu sañoon nag ñu jàppale ñu ci loolu te tamit saay-saay si sonal nañ ñu lool ndax suñu côté bii làmp mbedd amuñu ko te bëgg nañ ko ndax xaj yi sonal nañu bu suñ buntu kër yi ubbeekoo xaj dañuy daw ba dugg ci suñ biir bu ñu sañoon nag ñu jàppale ñu ci loolu waaw loolu daal lañ bëgg kuñ ci jàppale fu ñuy yëngu daal bëgg nañ ko ñu jàppale ñu bu baax a baax a baax ndax suñu xale yi am nañ jom lool ku ànd ak ñoom ànd nga ku am jom xamuñuy caaxaan xamuñuy tappale xamuñu jël ya fi jàmbur liggéey lañu xam jaamu yàlla liggéey nañu foo leen di dégg ci liggéey nga leen di dégg suñu liggéeyee ba wàcc daayira ci nga leen di gis kenn du leen gis ci leneen duñu dox lu bon duñu wax lu bon duñu defut safaan léegi nag ku ñu jàppale daal ñun loolu lañ bëgg ñun wasalaam. Fane Ndiaye Aliou Ndiaye nag soxna Fane Ndiaye. soxna Fane Ndiaye xam ne yow nga waa Ndiakhate. mbambu nga doon naxa de ndax sa dooma jar waxa de kon soxna Fatou bismillah maa ngi leen di nuyu yéen bokk jullit yi fi teew yépp di ci nuyoo bi sëriñ Sidi Muxtaar yal na fi yàgg lool ca wér kilifay dina yi làqoon yal na yàlla yokk seen leer ca taas ci seen barke ñun taalibe yi fi nekk ñu yàgg fi lool yàgg leen a ñaanal yal na yàlla def jàmm ci Sénégal te def ko ñëpp defal ko ñëpp ñu eggal ci alhamdulilahi rabil alamina xam kaddu yi sax du sori te ñi fi tok ñepp kenn ku ci nekk da nga ci am wal ci bëgg a wax li sa soxla motax ma bëgg ko gàttal rek ci kàttanu yalla waye li sama wax moy am sa du sekk mi boo ñëpp gor kepp won tay day fande gor la ko japp japp gor ko bayyi gor soxna Seye mi nag ma teewal fi tay koo xamul it dégg nga ko ndax mooy soxna si Baye Bada Gueye chef de quartier bi jaanatu baax lool njaboote ñëpp di dox ci di baax di ko wax bi loolu jaalee maa ngi sant xale yi essence bi nga xam ni tabax yi fi nekkoon yëpp am ay jafe-jafe kenn mënu cee dugg wuyu di ci làqatu bare na lépp set ak set wicc ba màggalu Serigne Touba Mbacke gi bu dikkee ñi nga xam ne amuñu ay dalukaay dañuy dugg ci di dal ñemeet leen fa fekk ak xéewal ya loolu ak sant yàlla la kenn amatul fenn foo làqu wuyu wu dugg bëgg a làqu pour def njaaxum sa xel nekk ci ni fii setal nan ko dangay fay nelaw ba xéwal fekk la fa loo jàppal sa xol lépp nga bàyyi ko waaye na bi loolu jaale bëgg nañu ñu jàppale xale yi bu baax ci ay bale ak liggéey ndax ñun jigéen ñu toog fii di mbootaay séygéey ak mbootaay menturé ñëpp benn la bëgg na noo am lu ñu liggéeyee ñu jàppale na ci bu baax a baax a baax financé nañu liggéey ndax chaque jour ñu ngi nekk ci marché bi ñee ngi waas jën ñee nga nekk ci fóot lu ne dugg nañ ci wax dëgg yàlla sonn nañ bay bëgg de ku nu jàpp leen ñu jël nanu ma ki jàppale ci am sa sekk mii xam na ci dara ndax yóbbu nañu ba marché Ocass ñu toog jàkkaaroog askan bi wax li nga xamante ni moo nu yitteel génn nañ télé dégg la noonu rajo tey ñoo teewaat fii di wax loolu en daa ku nu ci jàppale ñu jël am sa nag moom ñu ngi koy sant ko sant yal na ko yàlla jàppale ak Serigne Touba ci am nañ ci yaakaar te señ bass mi nga xam mom la andal mom la mamam demoon gabon gaga gàggati waa gànnaar jaaxa sox doomi soxna yi ñu na xam mbàkke baala bo mirul ni da ngay tooñ kon nag ki bu xecce rek dina am ndax bi na tuba bi jaaxalee mamam rek ka demoon faj lepp ba tay lepp do xewal kon nak yaakaar naa bu ande ak mom ci deug re dana jub ca yaakaar naa dina gañe ca man yaakaar naa ko ca na ko yàlla def ci barke sëñ fàll wasalaam kaddu yi rafet na am na solo may leen ko loxo kaddu yi rafet na am na solo waye sayyidina am sa yow ki nga àndal moo semal Fuuta gàgganti gànnaar raamloo doomi soxna yëpp nag rende ibli segabang tasaare taali jàng niinal booli réyal kolli yi te nekkul muy Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul ana taalibi Sëñ Tuubaa yi loxoy ca kaw mu yëg ma yëg ndeysaan Cheikh Abdou Lahad Mbacké mooy borom ginnaaw borom Madiyana ngi nii laa ilaaha illallah jërë ngeen jëf mi ngi nii ñëpp gis nañ ko xamee nañ ko mi ngi nii te yi ak suñu yëpp gis nañ fas fas yi mi ngi nii gis nañ waaw waaw gis nañ fas yi ku xëy nanga ko lem ba mu jekk nii nga koy lemi nii ba mu kii rek ba mu taarkaal la nga jël amuloo dugal ko ci biir am looy bu àggee doo ko kole da nga koy lem jël cat yi dugal ci biir fexel ba bulletin bi mu feeñ boo ko kole baaxut ndax ñun bëgguñu niil dañoo bëgg première heure première heure six heures première heure bennoo bokk yaakaar ni ñu àndee bokk yaakaar seen yaakaar jëm ca kaw ñu ànd liggéeyal dëkk Cheikh Khadim bi ndax ñun bu ñuy jàppale président Macky Sall dañuy wax ne kula la jëriñut sa yëblaat dafa waxoon ne ñaar dafa am mooy gërëmal ku la deful dara ak sant ku amul njariñ ci yow nee na gërëm ku la deful dara loolu ngi sal la te jëfi nga suñu borom moo ko bañ nee képp ko def dana duma ndax amul ko njariñ sant ku dul jariñ nag loolu moom ñeewi tuumal la ndax suma ma toogoon ne am si mi defal la ñaan defal ma ko naxu mën yéen ñii toog sama bopp laay nax ak ñi ma àndal li wér nag maanaam ban na bokk yaakaar boobu la tax ñu am pas pasu partel président Macky Sall dañoo gis mu def ci dëkk bi loo xam xamante nii yàlla dogal na musul gañe Touba la tax waa Touba musuñu ko ñoo xam waaye man de li ma xam man ba ma juddoo ba leen di dëkk bi li mu def ci Touba gii benn président musu ko fee def Abdoulaye Wade murid la kenn wérante ko mais assainissement mu jël huit milliards def ko assainissement c'est la première fois président Macky Sall def ko Touba. bourse familiale yaa ngi nii ñëpp gis nañ ko chaque trois mois nga dem fay ji vingt cinq mille francs kër boo xam ne lo digg na loo xam ne digg naa am nga yëkkati vingt cinq mille jox ko ñetti weer yu nekk mën na def jëndub ceeb wut ci ay fourniture xaleem def ci ay ay ay ndaw loolu njariñ la ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni euh, aju ñu ko tudd ñëpp xam nañ ko wante agriculture ñëpp xam nañ lu mu ciy liggéey ku nek xamni senegal mi ngi liggey ci mbay bu baax tali yi mi ngi ni Ila Touba bi mi ngi ni 400 milliards ci def mo war ñew ñëw Touba wax nañ ne Ila Touba bu paré man nga tok Dakar ba midi ba midi ba midi nga dawal auto ah waaw waaw Ila Touba man nga tok ba midi Dakar nga dawal auto ñew jurisi aljuma depart dem loolu taw feex la suñu bàllu ko defal kon wax ji moy bulletin bi nañ ko jël duma ko ci erne yi première heure Macky Sall jël ndam li parce que nak li tax ñu sonn ci kii moy ñun liñ investir fii ci janatu soxna Binta Dieng mii moom sëñ moom moom Mbaye Matar Dieng moom moom lañ fi investir moom su ma amee soxla ensemble national président Macky Sall war koo yëg du ma woo kenn damay waaxu ba këram ma ne ko soxna Binta Dieng léegi-léegi lii xanu suñ koñ te war am nañu ci naqari bëgg nañ président Macky Sall yokku bu demee da koy wax waaye suñu falee ku dëkk ca ndindi su ma amee soxla dama koy dem këram wala boo ko du ma ko jot bàyyi àll si la mii su ma amee soxla xam naa këram damay dem waxoo ko ma am anta nag buñ koy jàppale dañoo gis li libiram def ci dëkk bi ñu gis li muy jariñ koñam loolu ndegam lépp soxla ñu am wax ko mu taxaw ci te lum li tax soxla ñu am wax ko mu taxaw ci te bu ko disee président Macky Sall président Macky Sall def ko te ñun buñ ko disee ko kon moom lañ jàppale tey ëllëg suba ak képp ku fi nekk mbooleem leader yi ñu nekk ci koñ bii di jàppale mak Sall ñu ngi seen ginnaaw am saak mbooleem ku mu bokkal liggéey bi ñu ñëpp suñu seen ginnaaw ñu dañu paré ngir liggéey Touba képp ñu accompagné par nañ fi andé yow liggéey Touba ma ngi jéglu baax ko nga xata taala am sa sék mi nitu ñen la nit ku baax ku wayef ku ñëpp xam gënu ma leen ko xam ndax yeen la dëkkal xayna ñun la yeen dool mom ca marché ba way yeen la dëkkal waye luñ xam ci moom mooy laabir wayef té du son té lim am bokk na ko yéen ginnaaw bi lolou wé jigéen ñi fi doon wax seeni jambat ñoom rek laay tontu ndax ñu jigéen ñi laay waxal ñun jigéen ñi ñoo war a takku tey jii waruñoo soxla lenn lu dul suñu candidat yi gañe ndax kat président Macky Sall nag su fekkente ne at mu ne suñu wotee mu daanu ci dëkk bi liñ bëgg duñ ko mën a am lenn nag buñ ko soxla fi mu ne lu dul nag gemb ku am sa xarit ku am sa dëkkandoo kenn ku ne na nga fexe ba mu xëy wote ji teel a dem wote ci jàmm ak salaam mobiliser koo man bu kenn na ne takk sa ndigg waaw loolu moo ni may liñ bëgg li ngeen jàmbat lépp maa koy dégg moom la ñëpp yi jàmbat fan dem moom lañ fay jàmbat waaye nag wax dëgg yàlla nit nga ko defal ma defal ma defal ma te bu lan lenn lam soxla bu jotee nga xañ ko ko ah la ngay bëgg doo ko manaa a am ren jii nag nan takku nan fexe ba Touba gii na fi président Macky Sall gañe suñu député yi dem assemblée nationale bu lëggee buñ lu nu laaj danañ ko am lu nu laaj danañ ko am waaye buñ sagane ba opposant yi gagné ko kat opposant mo mënul dara dara la mënul ku la ci digit du la ko defal pouvoir mo man nan and ak pouvoir nit ñu baax ñi di ñu nu yaakaar kenn du ci nekk ci opposant pouvoir rek lañuy andal àndal ndax munta ñak ndax liñuy soxla soxla ñu dimbali talibé jappalé jàppale leen waar moo man takku leen te gor bu ngeen xeyé na ngeen téla défaru defaru dem wata ji lem ko ba mu jekk duggal ko ci bir bi dem duggal ko ndan te bul ko kole bul sàggan ba mi wad wala mu yaq na ngeen xam li ngeen bëgg ko xam fa nga jëm xam la nga bëgg nak soko la nga bëgg nak ko am bala nga ka say droit da ngay def sa dawar nan leen def sun dawar ba ray ko ba nopi nu wëlbatiku jakarlo ñom ka suñu droit ñi kat bu ñu demee assemblée muy sëriñ bi ah sëñ abdou baali ak sëñ allah si la mii ak abdou mbàkke ndaw ak euh, euh, euh, binta jang ñoom ñii buñ démé assemblée kan mën nanoo jakarlo ñom amu ci kenn ko xam boko soxla do ko gis waye buñ sambalé bam rëccu ñu kan man day wax dëgg yalla ñeneen ñi fi nekk xawma ci kenn kenn kenn kenn ñi ci sam nan leen góor góorlu jigen ñi nañu takku nañ takku takku fi gañé képp ku fi falu jigéen ñëpp gone yee la fal nan bàyyi dañ daan wax Touba mooy fale léegi at bu ne Macky président Macky Sall di falu te waa Touba du ko fal loolu moom nan ko bañ ren ren jii daal nan ko jox cent pour cent na ñëpp takku bu kenn taxaw bu kenn ko jàmbatati dara li ñuy jàmbat mooy nan fexe gañe ca urne ba noppi ngeen baal ma ak ndax dafa guddi te kilifa yi dañoo yàkkam ci am fuñ jëm si na ndeysaan xool ko dal gaak yoru gaak maanu gaak teg ga jërëjëf Mbacke ndeysaan ceeg la àndal sama xarit ndeysaan ana ñaan ak Cheikh Bassirou Mbacké ana ñaan ak Cheikh Bassirou Mbacké ana ñaan ak Cheikh Bassirou Mbacké ana ñaan ak Cheikh Bassirou Mbacké borom tiibal na sunu borom bay la laa ilaaha illallah Cheikh Bassirou Mbacké teew na de Cheikh Bassirou Mbacké teew na de Serigne Bass ku ngeen àndal Serigne Bass ku ngeen àndal ndeysaan ndeysaan ndeysaan asalaamaaleykum yéen mbokki waa Jannatu Mahwa ñu ngi leen di siyaar bu baax di nuyu nag seen am am sa am sa sec seen leader yaakaar naa fii lu ñuy werante waratu fee mën a am ndax mbooloo mi mbooloo mi ku ko gis yaakaar naa sa xel dana dal bu baax kon luñ ciy war a mën a wax daal mun waru cee bari lépp rek leer na ba noppi comme sëñ baa ngi toog rek suñu kàddu mën na cee bañ a sori ah am sa nak yakarna naa lim ma wax lu ci bari deg na ko muy ci walu financement yi walu lenen wa way lu lepp rek buñ ko teñké dal comme señ baangi tew te moo premier ministre ben lañ yakarna naa seen lépp daal mën naa wax ni lerr li ci des daal mooy bis ba ngeen lu ba premier heure ngeen fexé ba téla wata rek wata la yoy dal kula jëk wata rek mo la raw na teel rek ñun nak liñ ko waxee rek comme suñu kilifaa ngi toog daal waxu ci mën naa bañ a bari am sax daal li muy dem leer na gis nañ ko teg nañ ci suñu bët yaakaar naa daal dana confirmer li ngeen soxla buñ ca yeeg ak jàmm dana li a lijjanti ko jërë ngeen jëf ma jox sëñ bi kàddu gi saabu ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yenante bi sallallahu taala alayhi wa sallam sant ci Seexul Xaadim bu di ñaanal sëriñ Sidi Muxtaar mu yàgg fi loolu di wér fii nag yëkkati suñu kàddu dana diir ci ñun ndax suñu kilifa bu baax gi nekk suñu wet waaye dañ koy jéggulu baax rek am yéene yëkkati ko di am mbégte ak kontante ci jotaay bi ñu ñëw fekk fi am satu mu mu def mobilisation bu rëy bii nga xam ne mbooleem fu ñu mën a dem fu ne rek yaakaar nañ ne li ñu gis fii tey gisuñ ko ci barab yu bari kon amuñ sikk sàkk ci ne am sa li li mu dëkk rek la génne waaye bu wooloon mbooloo mi aji ci moom dana weesu fii waaye maa ngi ànd maa ngi ànd ak sama sama leader sama invi ki ñu investir tam aju ci man muy sëñ àll si la nga ne yaakaar naa sax ci mën na na ne ci kàddoom laa war a waxee ndax nit boo engagé woon nekk ci politique ki ñu teg sa kanam rek kok nga wara andal kok nga wara japp loy wax ci mom nga koy waxe ndax Madiyaana gi ñu son sonkat mom mi lañ fa tabbu moy kilifa ga mo jitu tayit mo nek ci le si waye buñ fi nga xam ne am sa lañ di fekk si am sa timit yag na ci politique yag na and ak président de la république waye tay ji bu demee ba tok ak premier ministre am beno wàccuwaay wayu ci gouvernement bi ci élection yi ñu dëgmal grâce à Serigne Bassirou Mbacké mii am na ñoo xam ne muy man muy man mii di sama moroom bokk ci parti bi bokk ci sëti Serigne Touba yi am cër bi ñu am yàgg nañoo ak am sa te jëlu jëppuñ ci loxoom yóbbu ko yóbbu ko ci ñoom ne ko kii su ñun la bokk yàgg naa liggéeyal président kon Serigne Bassirou mii nga xam ne bi mu ñëwee ak léegi ci parti bi ay fan la wala ay wer la ñew yëkëti am sa mi nga xamne ni daanaka bokku nañ si ñu juddulu parti bi yubbu ko tek ko ci loxo premier ministre premier ministre wax ak président ci am sa yaakaar naa ne kooki am na ne kep ku ak mom sa xel war na dal ndax ci tambali rek mu defal la ni boo and ak mom yaaka na lu nekkal kon serigne bas njabootug serigne soxna bu gep njabootug serigne cheikh gep ñong lay sante di la gëreum ci li nga def ndax si yow yaak serigne cheikh seigne cheikh day sa wajur way yena bok neegum nday seigne cheikh ay sa lepp fekke na seigne jotay ci miti sa mitin bi munela rafetal njort dang ci am ndam ne ko joxe ndigal lu aju ci man ñu ñu yau. ak yow ko am sa bu digge and ak yow da ko def ci ndigal ci ndigal la and ak yow ndax si ndax amoon amoon amo kumba ak seigne cheikh ci len kon am sa sëriñ Basiru limu la defal da ko def ngir sa digge ak moom waye def ko ngir sa digge ak sëriñ cheikh waye bi ñoo ngi wat di len wax ne sëriñ allah sile mi engagement yi nga xam ne ne président defal jël na ko ci moom ba investir ko ci liste bii Serigne Alla mi ngi jàllale message am ci ne mboolem population boo xam ne da bokk ci janatu ak ci saam ak ci boqaxatu mu barak ak ci Touba Madiana lépp loo xam ne ne doo ko doo ko doon jëf ci nit ñi démb ak barki démb ba tey jii lii ñu ko jox dara du ca wàññeeku day yokk rek tey mi ngi leen di xamal ne lépp loo xam ne ne digg na ko yéen. néewul ne ne lu nit lu mu diggee def ko waaye dana jëm kemtalaay kàttam ba li ci ëpp dana ko def li nga xam ne nag moom la diggante diggam ak président lépp lu ko soxla boo xam ne te ni dugal na ko ci noppam dana ko yegge président musaafara ko dana ko topp tamit ba keroog mu cay am ndam engagement yooyu la bàyyi àlla jël ci diggante janatul mahwa ak Madiyana ak boqatu mubaraka ak saam yaakaar naa nag liggéeyal na saam ak janatu ak Madiyana lu tax ñu war koo wooteel ci list bii loolu rek lañ doon jotle ci côté Baye Alla beneen boo xam ne ñu jàllale ko muy list bii ñu dëgmal muy list liste boo ko Yaakaar di eh, ñu investi Cheikh Abdou Mbacké suñu Cheikh Gaynde Fatma Baye Alla nekk ci biir liste bi nag ñaari fan yi am na ñu bëri ñu dem ci internet bi ak ci rajo yi di wax ñu leen di wax ne leen liste bi listub sëriñ bee mu neex nit ñi ak mu naqari leen na ko ñëpp xam liste bi listub sëriñ bee listub sëriñ bi mooy président de la république bu fi mas toog sëriñ bi ngay waxal xalifa général de Mouride ngay waxal xalifa général de Mouride ndigal li mu joxe mooy joxe ay nit ñu tabbu leen ci liste bi opposition bi bi ñuy jël ay nit di leen di leen def seen liste tàggu wuñ sëriñ bi président de la république doo nga tàggu sëriñ Cheikh Ahmed mu jox ko ndigal mu tabbu mu tabbu ay nitam kon képp koo xam ne wootal nga beneen list da def la la neex liste bii mooy liste bi nga xam ne ne mooy intérêt Touba mooy intérêt yoonu murit ndax ndigal ci ndigal lañ ko defee doomi Serigne Cheikh Gaïndé Fatma ak taalibe Serigne Touba ñoo ci nekk taalibe yoo xam ne ne yàgg nañoo liggéeyal Touba Serigne Bass mi bu liste bi jàllee ab sagam la bu liste bi ñàkkee jàll képp koo xam ne ne dox nga lu tax list bi jëlul yaa sàggi sagub Serigne bas man ab Abdoulahat képp koo xam ne ne position boobu lañu nekk ndax ñun fépp koo xam ne fa la suñuy kilifa dëgmal foofu lañ foofu lañ jublu président de la république wàccoon ak sëriñ si ndax sëriñ bu ci nekk la war ca yow ngi koy def te taalibe yi yaakaar naa loolu mooy loolu mooy li seen bëgg-bëgg tey jii nii sëriñ bu ci woote ab gor la tax ngay gor dañ laa jox yi tracteur yoo mën a bayee jox la aw jiw woo mën a suul jox la dund boo xam ne yaa ngi ko yóbbu ci daara yi ak leneen ak leneen lo xamne kenn mënu go tuddu talib yi tamit kep go xamne da nga da nga am ay jafé jafé wala nga am lo bëgg ci ab banex bo état état yor ko da nga koy ne wax ko sab sëriñ sab sëriñ dem ci état kon état ab sëriñ mënta ñak ak état mënta ñak and ak état sëriñ bi day day and ak état ci par la force sëriñ bu ko ci defut lo dox du soti da nga yag am yada nga sa digal sey talibé kon nañ bayyi caaxaan liste bi moy suñu liste li mooy li tub sëñ Cheikh Mat lay mooy li tub sëñ Cheikh Say mooy li tub sëñ Sidim sëñ Abdou Lahad mooy li ci ñoom ñoom ñëpp litti bi lañ yilif nañ bàyyi jaaxle ñii di wax nag ci rajo yi naam ñoo bokku sant waaye ba seen digg ak sëñ Tuubaa lu sori la Cheikh Abdou Mbacke mii da nga naan kenn nañ ñaar na sëñ Tuubaa ñii nga xam ne dañoo bokk ci yeneen liste yi mun seen maam ak sëñ Tuubaa la woon ñoo fi nekkoon ak sëñ bi ci Mbacke Bawol gii ñoom nag nañ nañ arrêté seen li ñuy def buñ ñu tax wax seen maam ak suñ tubaa woon suñ tubaa bàyyi leen mbàkke bawol ñëw daaru mën naan képp koo xam ne nag yaa ngi dem ci ci internet bi ak ci rajo yi du ñuy saaga danañ jàmmaarloog yéen ndax ñun du ñu metti ndax ñoom ku ko daan def sa maam dikk wi ñu sët bi dikk dikk bi nekk feeg sët bi di ko ko def ñun loolu du ñu metti dañ koy muñë comme na ko suñ tubaa muñëwoon nañ bàyyi caaxaan yi bépp taalibe bu leen di diglu na nañ def attention ñooma ñoom la naqari woon suñ tubaa ba tax mu ñëw daaru ma naan seen maama leen ko tegoon kon nañ nañ nañ bàyyi xel loolu waa wàññi ko wax ji ñun nekkuñu nekkuñ ciy caaxaan dafa jot nag tey ji ñu jàllale message yooyu ndax démb ak bërki démb la xewoon am sa mii ay siem sadu jaxate bi bi mu bi muy sañ si tubaa ay maamam la àndaloon turam yi looloo ko indi bagaan yi sëñ yi sëñ bi daan jëfandikoo moom ño ñoom seen cosaan looloo leen fi indi kon yoon wi loolu la baaxoo ñi nga ñi nga xam ne sëñ bi daa jóge ci barab bàyyi leen fa nag ñooñu day am lu nattu yu ñu tegoon sëñ bi moo tax sëñ bàyyi leen fa moo waral tubaa neex ñu digg àndandoo ak ñun arrangé wuñ leen ndax ndax sëti suñ tubaa yi dañoo ñëw jël affaire bi ndax boo njëkk dañaan ay mbàkke mbàkke lañ kenn mën dox seen digg ak suñ leen lenn si ñoom ñun nak dañoo bokk sëriñ bi bo nee kenn ne ñun suñ dugg suñ tubaa kenn la ñom nak da nga leen limal seen juroom ñaari maam do ag suñ tubaa mbak aw sant do nga lañ bokkale bokku ñok ñom leneen lool nak nañ ko wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh andal tu ngeen àndal tu ngeen àndal mooy bëgg a jël kàddu déglu leen may señor ñëw dañu wusi la yombul mané wota ñu wusi la yombul kon li wan ni and ngeen ak man te da ngeen ma japp ci kàttanu yalla

muy muy liste bopp fas wi muy manaw bees bi pour ñu jàppale ma jàppale sëñ bas mi jàppale sëriñ bi mooy nañ fexe ba liste bi jàll jigéen ñi chaque jour dañuy jàmbat problème financement di jàmbat problème financement financement yi mënuñu cay jot tant que jàppale ñu président Macky Sall nañ fexe liste bi jàll liste bi jàllee mooy suñu sakk nañ fexe liste bi jàll nañ fexe liste bi jàll man dama ne woon damay toog du ma wote bi mais ginnaaw yàlla sëñ bas mii moma wo laaj ma ne ma ban jafe-jafe nga am ma xul ma nak lépp nu ma ñëw na pour jàppale président li nga soxla dina saafaraw dama koy sant bu baax diko gërëm ndax yóbbu dama fo xam te kenn musuma faa yóbbu bis bi bisam la moko waral dama fas ànd ak mom liggéey ak mom ci carte nu yàlla dipi dékkol ngor ma nga ànd ak Macky Sall ne fi dama demal fi ñuy wax Touba Thiawel ak fenen defout bass ndax bokk dama ak fii samay nalo ñu bokk fi nek te bëgguma xëccoo ma na dem lémin sar mais seere la ci man ne naa dellusiwaat fii ci sama koñ fii taxaw fi sama baax mu gën a dëgër ndax ñi fi nekk bëgg nañ ma te ñi ngi may jàppale bu baax a baax wax dëgg yàlla xale yi góor yi dañoo toog dajaloo ni moom mënoo ñàkk bañ a dugal sa loxo ci gox bi mënoo ñoo ñàkk bañ jàppale ak jigéen ñi ma na leen bis ni tey loolu dana saafara ci kàttanu yàlla ñoom yaakaar na am na lu ñu gis am na ñeneen ñoo xam ne am na lu ñu gis fépp ma dem fépp foo xam ne dem naa fa ma ne fépp foo xam ne dem naa fa fépp foo xam ne dem naa fa diguma leen de dañoo wax la ñuy wax ma def ko ci sensé kon ñoom ñoom comme ñoom ñoo ci des li des mooy nañ fexe ba nañ ma jàppale liste bi jàll sëñ Bass mii nag awum ak payam man am sotu sekk responsable après depuis dekkal ngor ma nekk fekk samay nawle ci département bi di liggéey sonn lool xam naa nag ñeewante ma ak yërëm moo tax mu def li mu def fii laa toog ci garab gi fii premier ministre woo ma téléphone ni sëriñ bi moo la jox sama numéro dama laa soxla keroog fi ma toog xam naa ne boobu ku ma xëppoon kii ma nu mu waaw waaye nag amul lu ma ko mën a fay rek lu li ma def nii fas yéene ànd moom baax a baax nag département bi président yónnee na fi ay moyens fenn fa léegi Touba dañ ko dagg ay gox léegi dañ ko dog ay gox xaan maag baa àll mii ñoo bokk Mariana ak Sam ak Bokkatuma Fall ak Oumou Xora bi ma ñëwee ma gis moyens yi mu demee dama leen koo bàyyee ginnaaw yàlla lu ma campagne yi sëñ ma ko jox lu mat fukki café ak juróom dem naa fa te fu ma joxe naa fa cent mille francs ak téeméeri bëre moom mii moo ma jàppale moo ma jàppale moo ma dooleel te sagal na ma te dinaa delloo nar ba xolam si dinaa delloo buum buum ca boy boy ba incha la bi ci kàttanu yàlla li ci kanam rawati bët dana xam ne as gor laa te du ma jàpp di bàyyi kenn xamul ci waxantu bàyyi àll mii ñoom la ñu tànn ñu ay candidat ku ko xam-xam ni commerçant la nekk amul lenn lu ko boole kenn ngay liggéey di delloo di jël li nga am ne la laaj intérêt moom mi ngi ci liste bi liste na li tax mu dugal ko a naa nag sama yox daa bëriwul sama sama sama yox damaa mënta ko bu waaye ñuy sant bàyyi laat moom sëñ Cheikh sama sëriñ la bàyyi yaakaar bii ñëw fi ñu ngi jokkoo mbaa moom ñuy waxtaan mi woo gars yi pour ñu fexe nu ñu mën a def ba nage mi gën a réussir waaye ginaaw ku mënta wax moom daanaka <laughs> waaw di sant it soxna mbir njéeme bay mais soxna mbir njéeme bay marché Ocass fa la nekk maa moom ànd na dem ci premier ministre la mu wax premier ministre dégg ko premier la mu ko doon dégg ko soxna mbir njéeme yéen waa Touba chaque jour da ngeen di jàmbat ay moyens da ngeen di jàmbat ay financement soxna si fex leen liste bi jàll Touba fex leen président Macky Sall gañ Touba bu ko gañee rek amu leen benn problème Sénégal yëpp Sénégal yëpp Sénégal yëpp gis ngeen chaque élection Sénégal Touba Sénégal yëpp Macky Sall da koy gañee Touba di ko sanctionné lan moo waral loolu ay nit ñoo xam ne am amuñu xëy amuñu ngoon taxaw rek jongoro ko ni ko doo fi liggéeyee président bi ko jëppalul ba mu jàll du leen mën a jàppale il faut ngeen jàpp ji ñoom candidat yi nag ñeent fukk lañu ak juróom-ñaar dama leen leeral tey li li waral coow li candidat yi ak juróom-ñaar ñoom ñëpp président recevoir na leen pare waxtaan ak ñoom pour ñu war ànd ak moom négociation ànd ak moom kon li ñuy wax naan dañ koo contre dañuy caaxaan seen bopp lañ fi nekkal nekkaluñ moom waxtaan nga ak moom la jox président mooy dañoo bëgg chaque weer nga jox ñu juróomi million ak pàkk bu Ndakaaru loolu seen ma ko def du ma ko def du ma ñu génn mer fu ne ñu jaar fa naan dañ koy xeex lànk leen na ngeen ko jàppale liste bi jàll kiñ jëlee ci liste bi bu ci andi woon ndigal du ko def sëñ Abdou Lahad Gaynde Fatma moo yore mag moo yore communication màggal Touba bu demee ba duggoog ci ab liste du taxaw bee ma jox ndigal de du ko wax de waaye la tax mu dem tàggu sëñ bi sëñ bàyyi ko am na lu ne ci biir nañ jàpp liste bi jàll sagal président sagal kilifa yi ànd ak président président nag li man lépp ñu ngi koy def gis ngeen gis ngeen euh, ci ci ci koor gi passé am na ay kilifa yoo xam ne def nañ ay xutba sant ko di ko ñaanal baax di ko gërëm ci ay jëf yoo xam ne mi ngi koy jëf ñoom kilifa yi ba ni ko bàyyi waxee rek mi ngi leen di jàppale bu baax baax mais ñi nga xamante bi dañoo nekk yeneen liste yi ay xale yu ndaw lañ am na benn liste boo xamante bi ci ko yore ñu koy wax Cheikh Mbacke Bara Doli ñoom ñaar ñoo bokk benn bàyyi gis nga bu leen bu liste bi jàllee ñu bëri ñu naan Ablaye Wade Ablaye Wade moom duutu falu li a def def na ko jaanam wàcc na xale yi ndaw ñoo ko wër nag sonal ko liggéey ko wét ba xamul li muy def heure bi war naa fekk mu tëdd weer saa yi toog xale yi ko wër bu bi jàllee ñoom la ñuy fal seen biir kër ñu toog kenn ki dégg naa jox nañ ko fi Ablaye léegi joxoon na ko 100 millions mu jënd këram Ndakaaru jox ko gré passeport mu tëdd France ànd ak yeneen mbàkke mbàkke ñoom noonu nekk dëkk biir santas président mais li jox dara ñur boo ko jàpp da nga naan président boo ko gisee yi jàpp fexeel ba ci ba ci ceeb wàññi ko waaw dégg li sëñ bi wax sax ñoom sax daanaka sori nañ mais bu ñu mbàkkee sax daanaka kenn du ki mën a wax am leen lu ñu wax yaa ngi dégg mais fu ñu fekk fu ñu fekk président passeport lañ koy laaj ah ak ayu kenn xamul loolu du intérêt du intérêt askan wi intérêt personnel il faut ngeen xam loolu président ay kilifa ñoo koy jàppale kilifa yi yëpp ñoo koy jàppale kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ bi sama xol dafa sedd man nag maa mënta waaye dama jéem rek asalaamaaleykum wa mbokk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di nuyu Aliou Sylla bay Alla sunu candidat di nuyu satu mi ñu fekk si tey ak sunu rak sëñ Abdou di leen sant di leen gërëm waaye di leen jéggulu ci jataay bu yàgg bi nga xam ne xëy na ci ñun la waaye ci yitte yu mel nii rek lañ nekkoon ndax ñor gu ñu liggéey bi ñuy liggéey ñor am pas-pas ak yéene ci lii ñu jublu ñu am ci ndam te xam ne ndam la mooy doon suñu njëriñ ñëpp ñun ñëpp moo tax duñ ci noppalu duñ ci tàyyi saa su ne ñu nekk ci dox aka wax te lépp doomu aadama yi rek tax te ku ne xam na ne doomu aadama bokk na ci wala boog moom la sunu borom gën fonk kon kuy liggéey ci doomu aadama yi te yàlla rek tax nga ciy liggéey lépp loo xam ne nit a koy def ci jaamu yàlla mel na ne loola yaa nga ca ñun noonu lañ gisee lii ñuy def ndax damay wax ne politique politique dafay baat bu ñu yàq ci réew mi rawatina ci dëkk bi ba jàpp ne nit ku yiw sax waratu ko def te politique weesuwul saytu doxiinu àdduna ba man koo jariñoo te loolu lañu suñu borom indee fii ngir ñu jaamu ko yàlla jaamu yàlla suñu borom dañu fi indi ngir ñu jaamu yàlla te bala ñoo mën a jaamu yàlla nim ñu mayeem xel may ñu wér kattan la cay jublu ñu saytu ko saytu doxinu àdduna bi ba mën a jaamu yàlla noonu mu noonu mu ñu ko digalee politique nag weesuwul loolu ndax lépp loo xam ne dana yombal dundu àdduna wala mu koy awale yoon ci politique la mën a jaar kon dafa mel ne ñi nga xam ne xëy na seen jikko baaxul wala bëgg nañoo jaar ci kaw nit ñi tax ñu jël baatu politique bobu yaq ko bañ japp ne nit ñi yu ñi momatuñ ko te lepp liñ ci jublu wul bëgg jariñoo nit ñi te bala ñu leen mëna a nak nag faaw ñu ña nga xam ne doon seen kilifa wara doon wara doon seen kilifa dañuy fexé ba tek leen ci wet ngir loola mëna nek mo waral tay ko re serigne buy politique sax ñu japp ne serigne bobu dafa wacc yoon man mi day serigne Moussa wayjur moma jox ndigal politique momu njëkk jox luma jënd carte parti te yaakaar na né ku bok ci yoonu mourid xam nga pas-pas ci sëñ Moustapha xam nga talibem xam nga taxawayam ci diiné ak ci yoonu mourid kon bu doon luy luy bon wala luñu ñu wërta def du ko digal doomam kon nak nañu japp surtout mbolo mi nañ japp ne ñi nga xam ne dañ leen a yaakaar di leen jébbal seen bopp koo xam ne da ñëw ci moom jébbal ko sa bopp àddina ak àlla boo ko yaakaarutoon ci àdduna doo ko waxaale àdduna ja te ni ko sëñ Abdou Lahad waxee woon ba mu fi ba mu ba muy wax dane ba mu fi toogee ba tey kenn ñëwul fi man di ma wax mbirum àllaaxira ku fi ñëw àdduna nga may wax ndax xam naa ne seen xel dal na ëllëg waaye fii moo tax ñuy kon ñun ñii kat aduna lañ ñuy yaakaare ndax señ bi señ bi dong la mo manal nit ñi al ëlëk dara kon ñun ñi nak di njabootu señ bi ñun ño wara tabax taxaw njaboot gi ci loolu ñu yaakaar ci señ bi ba fekk ci ko ci dëkk bi jëbbalu ci mom ñu taxaw ci ba yaakaar jojé baña tass tas loolu nak ñun moy suñu pas-pas pas-pas bi nak lay tax mu mëna am moy ñu def la mag daan def la mag ñi daan def mooy ku fi nekk ci yàlla teg ko ci nguur gi ñu ànd ak moom di maslaak moom ngir la nga xam ne moom la ñuy soxla muy soxla si njaboot si njaboot gi ñu mën ko koy teg mu koy tegoo ba njaboot gi di am la ñuy bëgg ndax bu dul loolu kët ku ci dem ci koo xam ne defaloo ko dara àndoog moom yaakaar naa ne boo demee diis ko soxla it bu ko neexee nag bañ koo def loolu nag xëy na dalul président Macky Sall mii fi nekk ndax ba mu fi toogee ba tey mësta am ndam ci Touba te teewul li mu seq ak sëriñ si li mu war a seq ak sëriñ mu di ko def teewul li mu war a seq ak dëkk bi mi ngi ciy def lu mu mën kon jot na nag ñun ñu xam suñu bopp xam fu suñu njariñ nekk ñu jublu fa te bañ a sonal suñuy kilifa ndax am na loo xam ne sonal sa kilifa la ndax boo ko defee wan ginnaaw fa nga xam ne fa sa njariñ nekk te boo soxlaa ci sa kilifa ngay dem ngir mu wutali la boo ko defee da ngay sonn sonal sa kilifa kon sëriñ si joxe nañ ndigal ak joxewuñ ndigal loolu lépp du am amul solo ñun ay pol dañoo nekk ci politique nekk ci terrain bi di politique waaye kenn ku ci ne sa kër xam nga la nga xam ne moo lay jariñ ak la nga xam ne moo la mën a amal njariñ danga nga caa war a nekk te bañ a dugg ci loo xam ne ëllëg si biir ab coono kese la lay jural te ka koy seqal bu loola weesoo do ko gis do ko deg wala même boko deg gis boko deg du la manal dara kon loolu amul njariñ yaakaar naa mag ni ñi yag nañu wax mag du fecci euh, yàlla naa kon loolu dafa am lo xamne ñun ñoko ko suñ bop président Sall day wax deug yalla dafa am yene ci Touba nama ko mitin ba won man mi buma ande ak mom te parce que dama dem ba xamne nam ma waxe jàpp naa ne lum gëm la jàpp naa ne lum jàpp la moo tax ma ñëw ànd ak moom ngir gunge ko ci yéeneem jooju taxawaayam boobu nga xam ne moom la am fas yéene taxaw ci dëkk bi wala ci njabootu sëñ bi ndax li muy réclamé comme ni ko murid yëpp di réclamé mooy taalibe sëñ Tuubaa la te ñun ñi ñëpp nag kenn ku ci ne la nga wax ba bañ lay tuddee taalibe yaa ko waxal sa bopp kon kenn koo xam ne la nga xam ne nekk na ci sa xol xam nañ ko amut kon kenn mënu koo weddil kenn bu ko waxale boppam kon nañ ko nangul loola te jàppale ko niñ jàppale woon ki fi jiitu ndax loola itam dañoo jàppoon ne na nga xam ne noonu la ko sëñ Saaliw jàppe woon mu jàppe ko sëñ Saaliw noonu lañ ko jàppe woon ñun murid yi ànd ak moom jàppale ko fal ko falaat ko gunge ko itam ginnaaw ba mu fi jógee waaye nag koo xam ne loo xam ne yàlla moo ko jeexal ñun mënuñ ci dara li des mooy ñu xam fu suñ njariñ jublu ñu jublu fa te xam ne buñ jubloo feneen di nag sunu coono lay doon waaye lu ñu amal njariñ du fa nekk kon suba dimanche bi lañ jëm mooy élection yi dañoo bëgg mu doon premier élection bu président gagné ci département bi ci ci Touba mu doon loo xam ne ñu permettre ñun ñi nga xam ne ñoo ñëw ànd ak président di ko gunge ñu mën a dem taxaw jàkkaarloo ak moom jàkkaarloo su nawle yañ fay fekk wax leen soxla su waa Touba taxaw ca ba loola saafaraw ndax bu loolu amul kët buñ amee pas-pas bi ak yéene itam ñu demee su nawle lañ fay dajeel duñ duñ mën a wax ndax ñoom buñ jógee fa ñu jógee jëlee fa ndam ñun jógee fii jógee fi jëlee fi yaraanga ñu demee dañuy sëgg waaye duñ mën a wax seen soxla il faut loolu li ngeen xam ne moom ngeen di jàmbat ngeen xam ne balaa mën a saafarawu loolu dafa am. ndax ndaw yi ngeen di am di ko sàkk di ko yónni buñ demee te joxu leen leen ndam loolu itam ñu demee duñ mën a wax li ngeen bëgg ndax ku yób kuy dem fi barab yóbbaale gàcceekat yaakaar naa boo demee da nga tal leneen lu wax soxla ña la yónni kon loolu il faut ñu bàyyi ko xel xam ne ñun ñii ñëpp ñoo yéen a dëkk ñoo yéen a bokk dëkk bi ñoo yéen a bokk yéene ñoo yéen a bokk pas-pas te buñ sañoon lépp luy am fi barab am ci dëkk bi ndax ñun ñii loolu moo ñu noppal ndax njaboot gi ñoo leen njaboote bis bu set kër sëriñ bu mu ci man amul benn sëriñ boo xam da nga xëy ba jant bi so daanaka te doo doo doo doo doo doo dimbale ab taalibe ci fànn gu ma doon muy ci njabootam muy ci këram muy ci diggante ak yoon muy ci leneen ak leneen te loola mooy rôlu taxawaay bi nga xam ne taalibe yi liñ yaakaar ci sëñ bi te muy nga xam ne bu ñu jébul loolu la ñuy wax muy àdduna ja loolu mooy àdduna lol nak ñun ñi fi nek ñoy taxaway bobu ñoko wara war taxawal señ bi ci lañ nek nak waye il faut talibé yi dimbale ñu ci ñoom itam xamné lañ yi noppal seen kilifa moy, and ak nguur gi ndax non man lolou bu ma ko waxee dama ko sukkandiku fu wër señ Moustapha ba may digal lolou lam ma wax moy ki fi nek ku fi nek nga and ak mom ndax lolou lako bayam bàyyam lolou bam moy wax lolou la ma wax lolou la ma sa mam digaloon ku fi nek ngeen and ak mom ndax boroom njaboot day ànd ak ku mënal njabootam dara kon moom ba muy ànd ak boro kooku itam njabootam a tax waaye boppam taxut kon loolu na ko nit ñi xam guddi na ñoo ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah